dal leen ak jàmm mbokk internet yi gis nga nag dëgg moom yàgg yàgg mooy njëkk te mooy mujj mag ñi nee na ñoo dëgg dina guddee waaye du fanaan àllum mukk dëgg ji feeñ nag jamono jii nii ab bëkk neeku sëriñ Muntaxa Mbàkke moom bëkk neeku kilifa murit yi ma ngay weeje de waaw waaw nee na am na ñoo xaman dañoo sës ci xalifa bi te leen tax a jokk mooy xeex soxna Ayda Jàllo moom bëkk néeg bii nee na am na yenn ci ay bëkk neeg yoo xamante ne dañoo sës rëkk ci sëriñ bi ba noppi di lal ay pexe ngir jaxase ko ak soxna Ayda Jàllo bëgg ñëpp xam ne ñii lay nekkuñu ci yoon ànd ak loolu moom mi ngi wax bu ñu sukkandikoo ci ay kàddam mu ne man maa indi soxna Aida Diallo ci Serigne Mountakha te caaxaan taxumaa jóg waaye yemul foofu foofulee ba tey nee na sax du soxna Aida Diallo dong am na tamit yeneeni kilifa yoo xamante ne ñoom bëgg noog yooyu ne saay su ne ñu ngi teg ay palang ngir rek jaxasee leen ak yàq seen der ci bëtuba Serigne Mountakha Mbàkke moom bëgg boobu boobule di wuyoo ci turu Serigne Modou ma dëgg ñenn ci ñi nga xamante ne dañu nekk ay bëkk nekk sa sës rëkk ci sëriñ bi ni nga xamante ne noonu la ñu nekkee jamono ji di rambaaj ak jaxase moom sëriñ Modou nee na kañu njëkk a jaxase ak sëriñ bi moo nekkoon ci ay jamono kii la di Idrissa Seck te ñooñu ko jaxase woon ak sëriñ bi jamono ji ñoo taxawaat temb ngir daal di jaxase sëriñ bi ak kii di soxna Aïda Diallo nekk jëwriñ cantaakun yi te li mu wax ci moom moom sëriñ moodu mooy Aïda jàlloo simple soxna la rek du dara as ndaw la dañu koy jaxase ak sëriñ bi dara nekk nekkul ci moom ñu ko gën a bon lool ñoo fi nekk moom bëkk néeg bii di sëriñ Modou yemul foofu nee na ba tey soxna Bali yoonam nekku ci sëriñ bi baal na ko bu yàgg muy xamle ba tey ne yenn ci bëkk néeg yi daal daanaka yombalu ñu liggéeyu sëriñ bi le daanaka yombalu ñu sëriñ bi di sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général des mourides ab liggéeyam ñoom bëkk néeg yooyu le dañoo sës rëkk ci sëriñ bi te li leen tax a jóg rek mooy di tàqale sëriñ bi ak ay ci firnde ay moomulee dal di sori lool ak sëriñ bi jamono ji nag kii di soxna Aida Diallo moom la ñuy fexeel la mu jeexalee nag moom bëkk néeg bee du la am solo rek ndax mu ngi ñaan di sàkku ci képp ku nga xamante ni nii da nga sës rëkk ci sëriñ bi lii la lay wax moom sëriñ du mu ne nañu bàyyi sëriñ bi mu liggéey ak ñi mu bëgg liggéeyal moo gën li gën nag ci mbir mi moo ñu indi ci ay leeral yu am solo moo tax ba dinañ leen ko toppal tànk ak tànk ngir ñëwaat ak yéen ci yeneeni xibaar jërë ngeen jëf